Ndeye Mbacke fay naa la di mbay Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaat mbégte jàkkaarloo ak ñoom ci lundi bi pour indi leen li gën a fës ci yenn yi. lundi 26 avril 2021 journal suñu la moom xëyee ci xëtam bu njëkk obtention des dates pour organiser des combats le CNG fixe des conditions aux promoteurs Mbaye Babacar. jërëjëf Ndeye Mbacke suñu làmb moo xëy fasal loolu ci journal bi euh, li mu xamle mooy CNG dafa génne li nga xamante ne bii mooy benn circulaire maanaam ñu naan ko bataaxal di ci wax ak promoteurs yi euh, ay conditions nag la leen tegal conditions ya nga xamante ne bii Assane àndal ñu ci ay leeral bu baax a baax. Mbaye Babacar ñeenti condition la CNG teg jagleel ko promoteur yi li muy bañ nag mooy que promoteur yi jàpp date ba pare duñ ko respecté looloo tax mu génne leen ñeenti condition première première condition bi mooy le euh, les écoles et écuries de euh, lutte engagées doivent être en maanaam école de ak écuries yi nga xam ne nii moom la promoteur yi engage dañu war nekk en règle foofu ci CNG deuxième euh, condition bi moom mooy le promoteur les managers des lutteurs même que les lutteurs doivent détenir des licences en cours de validité maanaam promoteur bi manageru lutteurs yi ak lutteurs yi nga xam ne nii ñoo war a bëri combat bi ñoom ñëpp dañu war am licence yoo xam ne nii valable na ci année bi beneen bi moom mooy le promoteur doit remettre au manager des lutteurs une avance de 50 pour cent sur le cachet des lutteurs en présence de membre du CNG maanaam promoteur bi bu tëggee combat war na joxe benn avance bu 50 pour cent ci cachet bi war majeuru mbër yi loolu nag bu ko joxe euh, benn membre CNG day euh, toog am na beneen dernière condition moom mooy euh, déposer à la direction administrative du CNG une caution 2 millions remboursable après la tenu de la manifestation maanaam promoteur bi bu tëggee combat day jël benn caution boo xam ne ni 1 million la mu jébbal ko waa CNG bu respecté combat bi date combat bi ñu delloo ko ko bu dee respecté ko nag am na nu muy demee mu ñàkk ko mu nekk la nga xamante ne bii euh, asan lu am solo la te yaakaar naa euh, promoteur yi buñ ko sàmmantee bokk na ci li nga xamante ne bii day tax euh, ku jàppati date rek nga jéem a respecté li nga xam xamante ne bii moom mooy sa dat mu yomb ci mbër yi tamit. dëgg la Mbaye Babacar date ñu date yi dafa bëri promoteur yi bëri ku nekk yaa ngi jël sa date pour nag ñu éviter nga jël date ba la jour J doo ko respecté yaakaar naa condition yi lu baax la ci. ñaari condition lañ teg benn bi nee naa neex na am na ñu mu neex parce que arrangement wu ñëpp la mais beneen ba nag neexul ñenn ñi ba tax nag kii di Abdou Fall moom mi jiitee kuréelu promoteur ya daal di mer ba furtu di joxe di artu nag kii di waa CNG lam ca xam ne nag mooy neena fii ak ay fan dinañ arrêté seen activité yëpp daal di jàkkaarloo CNG bi fi nekk Mbaye Ba. jërëjëf Ndeye Mbacke Pape Adou Fall mi nga xamante ne bii moom moo jiite promoteur yi nekk ci Sénégal mel ni kàddu yooyu Bira Sène yëkkati da ci andi tontu. li mu xamle mooy ñoom promoteurs yi ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg ñoom daal dañoo lànk ba tëdd ca naaj wa ci condition yi nga xamante ne bii moom la euh, CNG joxe ndax ñoom euh, li ñu bëgg mooy euh, ñu bàyyi leen ñu continuer ci li nga xamante ni bii noonu la ñu nekkoon Assane. Pape Abdou Fall li muy bañ nee na ñoom pare nañ sax pour arrêter seen activité yëpp lu ñuy bañ mooy caution un million boobu nee na ñoom pare woon pour déposé ko foofu ci CNG nee na nag bara Bira Sène doon ko fal bees waaye euh, am na instant bi dafa mel ni dafa wàcc mission am nee nag ñoom daaxun sax ñu euh, yëngu-yëngal foofu ci CNG pour contester décision bi ñoom ñu jël. Mbaye sagara nga commencé xëy de. en tout cas lu ci mën di am bu ñu toogee ci benn taabal bu ñu waxtaanee war nañoo mën a déggoo ndax ñoom ñëpp avancement làmb mooy seen bëgg-bëgg. dëgg la Mbaye Babacar. ci noonu nag Jordan doomu dàngu Cobra numéro 2 Bara Ndiaye tonnerre mobile de kii boobu nag explosif boobu nag mbay Babacar kii di Modou Guèye. promoteur bu bees moo ko sële. milliardaire ba la nekk ci États-Unis nga xamante ne bii macha allah dafa gaaw ci loxo ci poche macha allah ku mu jàkkaar rek wallaay bu la rëkkee booy siggee sa xol sedd mi ngi noonu moom nag dafa mel dafa dugg ci làmb ji di tëgg li nga xam ne moom mooy ay combat Assane mu taxawal combat yi nga xamante ne bii ay combat espoir la wante combat yu neex la. dëgg la Mbaye Babacar Pathé Sène mi nga xam ne ni moom mooy moo Moget Events ndax Moget euh, structure structure am bi Moget Events la ko tuddee Pathé Sène Silla bi nag moom moo xam ne lii nee na Moget samedi bi passé jox na avance mbër yi di Jordan ak doomu Dangu Cobra de Bara Ndiaye. tonnerre ak mobile 2 nee na ñi ñëpp tëgg na seen combat te war na ko amal fii nii ci saison bii di ñëw incha moo ngi noonu nag mbay li ma doon wax démb rek. Mhm. may ma jën jàngal ma nañu nappee moo ko gën. waaw waaw ah, moo gën lim def ni rafet nag ñu ko ah, salué bu a mhm. a gis sa de ca noonu nag ginnaaw Tigre de Fass ba ba mu génnee daal di wax di artu ki nga xam te ne mooy Ama Ballé tuutal ci am kii di Tapha ne Modou Lo moo gën a coriace Tapha Tine kii di El Hadj nag tontu na ko xëy na daal di koy dankaafu nee na ko bis dina ñëw kooku di Gris Bordeaux di sa poulain Tapha Tine dina ko wan ne moo ko gën a dëgër. El Hadj moo yëkkati yooyu la kàddu ci journal bi xam nga Tafa euh, Tafa Gueye euh, démb wala barki démb dafa dafa ñëw ci journal bi ñu koy laaj combat boobu di am ci diggante Ama Baldé ak Modou ban jàngat nga ci am mu ne euh, Modou bokkul ak Tapha loolu nag mel ni dafa naqari El Hadj mi nga xam ne moom mooy agent bu tafaatin Tine nee na nee na Tapha bis dina ñëw tafaatin jàkkaarloo ak Gris Bordeaux su boobaa di nga xam ne pomme du moroom mu new te tafaatin Tine dana woon Gris Bordeaux diisaayu loxoom dina ko dóor ba nangu ko ci ay ay ay loxoy mbokkam dëgg la Mbaye Babacar euh, euh, kii di El Hadji Thium muy Thioune muy agent euh, Tapha Tine waxu Tapha Gueye gi daf ko naqari trop loolu tax mu xëy tontu ko nee na daal jour dina ñëw comme ni nga ko waxee giri jàkkaarlook Tapha bu boobaa Tapha dina ko wan di saayu loxoom waaye également nee na na Tapha Gueye def benn comparaison entre combat bi nga xamoon doxoon na ci diggante Tapha Tine ak Bombardier ak combat bu doxoon ci diggante Modou Lo ak Bombardier nee na boo seetaanee combat yi nga xam ne Tapha Tine du ñeexoo ñebe nee Bordeaux bokk na ci lutteurs yi nga xam ne ni ñu ëpp defet ci combat bi te depuis quelques années ay promoteurs ñi ngi koy topp di tëggal euh, moom combat am ak euh, ak Gris Bordeaux ak Bombardier waaye nee na Gris 2 day bañ loolu rek euh, montré que ne El Hadj waxi Tapha Tine waxi Tapha Gueye neexu ko mhm. ba tax mu indil ko tontu yi yëpp mhm. ayca ca noonu nag ginnaaw combat royal bay dox ci diggante Modou ak Ama Baldé kii lu ne ko laay ouvre sa saison de lutte simple teg na fa li nga xam te ne mooy 3 millions le 15 mai incha allah à Nianing Mbaye Babacar. léegi Nicolas ma nga jëm ca presse bëre simple ba Assane Nianing la jëm nag tegal na mbër yi ñetti millions incha allah mi ngi fas yéene ubbee saison ci li nga xamante ne bii moom mooy bëre simple bi kon mën nañ wax ne promoteur yi temps yi songu nañu bëre simple bi di bëre bi nga xamante ne bii amul dóor. dëgg la Mbaye Babacar songu nañu bëree simple bi ñu fàttali ko Luc moom moo tëgg combat royal bi war a dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo ba léegi nag ñi koy xaar ci date ci combat boobu mais waxagul dara nit ñi gannaaw nag loolu moom dikk na soobu ci li simple bi le euh, le 15 mai à Nianing benn village bi nga xam ne ni soriwul Mbour foofu la bëgg a saison am li mu fay def nag benn gala de lutte simple la fa tëgg 3 millions la fa euh, tëggal euh, mbër yi nga xam ne ni ñoom mooy ñoom ñooy dem ci lutte simple bi muy nekk mise boo xam ni mise bu uh-huh. ca noonu nag ginnaaw ba Forza ne day jëli revanche am ci ki nga xam ne mooy Pakala tey jii nag Pakala daal dina koy tontu ci journal bi nee na ko maa la mën fuuf soo bëree dinaa la daan soo xeexee dinaa la duma ba nga tëdd Mbaye Babacar. waaw Pakala moo yëkkati yooyu la kàddu ci journal bi démb euh, Forza dafa ñëw doon euh, wax naka la nar a bëree ak moom mais tey Pakala dafa ñëw xamal Forza ne ko. li fi nekkoon ba léegi jógu fi ni ma la daanee woon ba li ma la daane woon ba léegi mi ngi fi te su ma la jàppaatee dinaa la duma dinaa la daan asan dëgg la Mbaye Babacar ñoom ñaar ñi ngi daje woon le 4 avril 2012 boobu lañ njëkkoon a daje Pakala daane ko combat boobu nag dafa mel ni dafa naxari euh, Forza bu baax a baax looloo tax euh, samedi bi passé mu génn ci journal suñu làmb nekk par A ou moom dina jël revanche am ci Pakala Pakala nag tey tontu na ko nee ne ko li fa nekkoon ba léegi moo fa nekk bu bëree dinaa la daan boo xeexee dinaa la duma nee ne euh, li naqari Forza mooy que ne da ko fekk équipe kii mm, équipe nationale bu kii bu Sénégal ci li simple génne ko fa nee ne depuis loolu daal loolu tax mu jàppal ko euh, mer te loolu ci seen combat bi dinañ ko régler incha allah. kon daal combat bi dafa am règlement de compte ci biir. règlement de compte la ñoom ñaar dañu nekkoon équipe nationale xam naa paka la génne ko fa loolu métti Forza. ba pare mu daane woon ko en plus donc combat bu war a neex la. génne ko équipe nationale ba noppi daan ko. daan ko loolu day métti trop. <laughs> doy na waar. <laughs> <laughs> jotoon nag. Mor Gueye moo moo gétt ko tuddee. Mor Gueye Mor Gueye. Mhm. borom tur bu ah, a ko nangul. Mhm. ginnaaw ba mu taxawalee combat yi nga xam ne ay choc explosif la ñëpp nangul ko ko da def renfort benn mhm. ñaari revanche. dox diggante Alaaji mooy Boucher ñëpp ne waaw. xanaa doy na mu ne déedéet damay dolliwaat ci liiru ak mooy wulliwaat wulli wulliwaat. waaw combat boobu rek macha allah neex na te it amateurs yi dañ ko dañ ko yàkkamti moo gétt moo taxawal moo taxawal loolu dolli ko ci journée bi di dox ci diggante euh, liiru jaan ak wulli Assane ñoom ñaar dañu bëri woon fële ca Gambie. combat ba metti lool ci ki nga xamante ne bii mooy liiru jaan mm-hmm. wulli wulli ko fa ay wulli yu méttee méttee méttee métti liiru bu ma déggee nag dina ma mere sama xarit la waaye liiru euh, wulli xaw na laa rey korok mi ngi noonu yemu ca andiwaat combat ji Mbay ak Buuse ñaar ñooñu nga xamante ne bii seen signature de contrat rek jar na dagg bi mm-hmm. dëgg la Mbaye Babacar Mouhamed Diallo euh, la moo géet tudd ñu ko xam ci moo géet waaye euh, vrai am monté nag Jordan euh, doomu Dangu Cobra 2 Baara Ndiaye Tonnerre ak Mobile 2 def ci toftal yeneen ñaari combat yoo xam ne nii Sénégal yëpp koy xaar mu war a dox ci diggante Alaaji Mbay ak Boucher beneen bi war a dox ci diggante Liiru Jaan ak Wuli def nga ñëw nga si seen seen combat yi passé ni mu fa demee woon ah. donc Alaaji Mbay nag ak euh, Boucher mos nañu daje la 5 janvier 2014 Alaaji Mbay moo ko daane woon Liiru Jaan également combat bi ngay wax ci Gàmbi la xewee woon le 15 décembre bële passé ci Gàmbi euh, Liiru Jaan daane ko par point parce que wuli daf ko dóor dóor ci gannaaw saako yi arbitre bi jox ko defet ah, ba léegi wuli d'accordul nag de. gis naa seen combat vraiment lu nekk la moo gën xamul sax lim def. mbay combat bu neex la ñuy xaar incha allah. te doon nag six combats disputés en 2005 kii di Balla Gaye numéro 2 l'homme des grands défis lion boobu ca Guédiawaye ji nangul ko jàpparteem Mbaye Babacar. Balla Gaye 2 moo def loolu juróomi combat ci benn at Assane. Euh, loolu atu 2005 la woon. mu bëre ci juróomi combat mu mel ni at moomu Balla Gaye wane na ci boppam te yaakaar naa dynamique boobu la waroon a continuer nag at mu jot bu bëriwul juróom tamit bëre ñetti combat day neexal làmb ci. dëgg la Mbaye boobu la Balla Gaye njëkk dugg ci làmb boobu la démarré carrière premier combat mi ngi dajeek euh, Samba Lawbe le 2 janvier 2005 deuxième combat mu dajeek Dame Kandji le 16 janvier 2005 toujours euh, mu tekki Papa Sow le 5 février 2005 Boulon le 17 avril 2005 Maam Góor Diouf juin 2005 dernier euh, mujjee ak Saloum Saloum le 10 waaye du Balla Gaye rek moom moo def premier année mu def 5 combats Modou Lo également première année en 2006 6 combats la am 6 victoires premier combat mi ngi daane Papa Pape Sène le 4 février 2006 teg ci Aliou Sey numéro 2 le 11 février 2006 teg ci Pape euh, Bouba Diop le 20 euh, avril 2006 teg ci Serigne Diouf le 14 mai 2006 teg ci Khadim Diallo le 15 juillet 2006 euh, mujjee ci laay Bey le 3 décembre 2006 donc Balla Gaye ak Modou Lo rek ñoom ñoo defagum performance yi ci mbër yi. mu mel ni ñoom ñaar dañoo xaw a li nga xamante ne bii mooy yoon. dañoo xaw a niroo yoon moo tax seen rivalité di nekk ba instant bi nii. moo tax heure bu ñu dajee rek day metti day metti ñaari mbër la yoo xam ne nii ay ténor lan ay mbër yu am public lan yoo xam ne nii yu am jom lan te mën a bëree ci làmb ji ca noonu nag journal record lañ jëm signature de convention avec Bamba Mboub et fils directeur bi yor wàllu mbay mi mbay Babacar ànd nañoo ki nga xam mooy Bamba Mboub daal di dékk loxo mbër yi waaw loolu la mi ngi am euh, barki démb fële ca mairie bu Patte d'Oie euh, moo ànd ak direction de l'horticulture ñu ñu xaatim benn convention maanaam benn lëkkaloo ba nga xamante ne bii dañoo tàllal loxo mbër yi ngir jàppale leen ñu mën a am ay tool mën a jublu ci mbay mi mën a am seen yëfi bopp te du jóge ci li nga xamante ne bii mooy làmb ji ndax ku ne xam ne na làmb du métier làmb domaine la ba nga xamante ne bii mën naa dox tey suba du dox looloo tax ñoom ñaar ñu benn lëkkaloo ba nga xam ne fas yéene jàppale mbër yi Assane. dëgg la Mbaye Babacar Macoumba Diouf moom mooy directeur de l'horticulture ba mu jëlee kàddu nag li mu xamle mooy li tax mu nangoo signé convention bi mooy que ne dafa bëgg jàppale mbër yi nee na bëggul gis mbër yu bëri ci saal yi mais ci ferme yi la leen gën a bëgg di gis nee na nag moom pare na pour jàppale mbër yi ndax ñoom mbër yi nga xam ne nii ñenn ñoo nekk ci làmb ji dañu war a nekk ay chef d'entreprise loolu ta moom nee na ubbil na leen seeni porte bis buñ ko soxlaa pare na pour accompagner leen nekk ay chef d'entreprise ci wàllum agriculture mu nekk initiative bu ñu war a saluer mbay Babacar. waaw muy lu am solo la nga xamante ne bii dañ ciy jaajëfal Bamba Mbow mi nga xamante ne bii moom moo ko initié ba pare jiite fils ñu koy jaajëfal bu baax. di ko jaajëfal bu baax moom Bamba Mbow noonu laay jaaree rek jaajëfawaale ñu ma fegguloon ci revue bi loolu moo nekkoon li gën a fës Mbaye looy tàggatoo. xanaa jaajëfal ñëpp jaajëfal suñu mbokk internet yi ñaanal leen jàmm ak salaam di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba di jaajëfal bu baax waa Njaareem sama dëkk di leen ñaanal weeru kooru jàmm ak salaam. Assane ne Mbacke di la remercier di remercier Mbaye Babacar di remercier internetu Leewtoo TV di remercier waa Linguère mais également di compatir ak waa Linguère ndax hôpital Magatte Lô ci weekend bi passé ñeen di xale dañ fa ñàkk seen bakkan di masawu seen njaboot gi yëpp yëpp yëpp métti na nga am sa doom gisagoo ko sax mm-hmm. mu fi mu nekk lakk ba mu génn ci àdduna métti na donc di leen masawu di remercier Yacine Fall équipe Leewtoo TV yëpp di leen jox dig daje su soog jàmm incha allah ñu ngeen leen di saw bu baax a baax ñoom waa Linguère ci noonu la ñuy jaare tàggatoo di leen béggee bu baax di am contentement jano ak yéen jour Bilal maa ngi lay béggee bu baax sama karamaan bi Yacine Fall kontaan naa ci yow Bamba Tata maa ngi lay béggee bu baax Adja Nasfar bëgg naa ko bu baax a waa tata nante bi ah. Kébé kontaan naa ci yow noonu laay def rek di bëggee Mansour Fall borom borom anniversaire bi suba di kontaan ci moom lu baax a baax a baax di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV